mbokki téléspectateurs yi ñoo ngi fii nga xamante ni moom moo di rond point case sama ginnaaw su ngeen xoolee mooy rond point bi nga xam ni dañu ko defar yàggul jëmbat fi ay garab mu nekk espace vert waaye nag li ma jaaxal mooy soo rombee fii foo taxaw xet gi gilli lan moo ko waral ñaan ñoo fay ngànnuwaay nekk na en tout cas problème boo xam ni dañ ci fas yéene waxtaan fii ñu taxaw nag dañ ci fekk ñoo xam ni dañuy daan seen doole wax dëgg yàlla di leen jaajëfal ci seen liggéey ndax itam bu ñu taxawee fii di wax ñoom may may may may nañu ko ba nga xam ni dinañu mën a def suñu liggéey na mu waree ah, xam naa nag ci biir waxtaan bi ñàkkul dinañ ci xëcc kenn wala ñaar ci ñoom ñu wax ñu li nga xamante ni moom nañu xalaat ci rond point bi ñi nga xam ne ñu fi jëmbat garab mu nekk benn espace vert ñu fay tuur ndox mu dem dem ba nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla day yàq alam bi ndax xam ngeen ni lii ñuy def dañu ko def ci anamu environnement bi di suñu alam ñu xam ñu ñëpp ñoo ko war a moom te ñu war ko sàmm. ndax kenn umpalewul nii jiitu réew mi Macky Sall taxawaay bi nga xam ne taxaw na ko ngir defar dëkk bi ba nga xamante ni wàllu embouteillage yi waaye itam xat-xat xatu xàll yi loolu lépp itam ñu mën koo euh, leeral yoon yi leer nit ñi am fa ñuy jaar waaye itam. environnement bi ñu toppatoo ko bu baax a baax war nañu taxawal sax ay bërëb yoo xam dañ ci ngaanuwaay ndax lu mel nii ñu gis fii nit ñi di romb di dem ku wàcc amuloo foo mën a ngaanuwaay lii moo lii ci lii nga mën a yem nga daal di dem fa tuur fa ndox xam nga loolu itam jaaduwul ci dëkk boo xam ni mën a indi ay ay ay ay ay musiba wala mu ne ay ay ay ay euh, damay def rek ñu dul ñu xëcc kenn mbokk yi ku ci mën a teew nga daal di ñëw ñu ànd seq euh, jataay bi daal di ko waxtaan ba xam nga ñu baaxee tur bi. Euh, asalaamaaleykum man Jam Samba Diallo laa tudd. Samba Diallo ñu ngi lay nuyu bu baax di kontaan ci sa taxawaay. Mhm. Euh, lii ñu def nii mooy problème environnement. Mhm. ñëpp gis nañ ni lii nga xamante ni moom mooy di rond point bi dañ fa mhm. jëmbat ay garab. mu nekk espace vert boo xam ni espace vert dafa nekk lu am solo ci biir réew mi. waaye dem nañu ba nga xam ni dañoo gis ni boo fi rombé tey dafa mel ni xetu saw. baar ma ci terme bi. mooy xeeñ fépp. loolu nag nekk loo xam ni jaaduwul responsabilité bi fan la ñan la lu tax wala dañoo ñàkk xam luy espace vert am déet bon la responsabilité elle est partagée laay wax uh-huh. parce que ñun moom ñun moom <coughs> damay ñëw d'abord ci occupation anarchique l'espace public bi loolu moom du yoon gars waruñu occuper espace public bi mm-hmm, mm-hmm. espace public c'est par exemple piétons fu ñu waroon jaar trottoir piétons yi fu ñu waroon jaar ah, problème la gars teg seen table léegi loolu fu nekk di jaay dal fii waroon fi jaay dal waaw <laughs> encore espace euh, affaire bi bu ñu ko defee ay des jardins publics wala des espaces verts daa war am suivi soit euh, la mairie ou l' état quoi des agents mhm. spécialisés ñu koy gérer mhm, mhm, loo loolu war am ko waaw parce que leneen bi tamit gis naa le ministre là euh, Fofana maa ngi koy remercier di ko gërëm quoi yéen nañ ko def i faut ñu am courage politique ñu des décisions am de désordre ñu ngi voté ay loi mais duñ ko duñ ko. voilà duñ ko jëfee duñ ko appliqué. l' applicabilité faut fait problème. Mhm. il faut ñuy jëfee loi bi. bu ñu voté ay loi il faut il faut qu'il y ait loolu mooy wax ji quoi. gis nga en Asie gënuñu gënuñu en Asie. gënuñu lii quoi. gënuñu gënuñu am respect. waaw mais Rwanda Rwanda bi rek. nga bi ah. nii rek courage politique la ça ça dépend du leader quoi président. bu mhm. mel ne nos gouvernants. il faut ñuy prendre des décisions fermes encore ñu koy appliquer. ñu teg fii les gendarmes les hommes de les les forces de l'ordre ñu koy appliquer. très bien waaw même bu dul sax xëy na des forces de l'ordre xam nga am nañ fi ASP. Mhm. agence de sécurité de proximité ñu mel noonu par exemple bërëb yu mel nii mën nañ fi taxaw ku nar a def naka suñu noonu ñu la ee delluwaat la ci yoon. Mhm. ci yar ak teggin. Mhm. waaye itam jàpp naa ni lu mel nii suñ fi tegoon ay urinoir. bërëb yoo xam ni dañ mën a def seen gaanuwaay. ay urinoir mobile. voilà mobile yooyu dana tax lii itam parce que. kii dawal oto wala ki toll ci diggante amu fa mu war a ndox xam nga néegi kër yi kenn ñemeetu fa dem di tuur ndox ndax kenn wëlatul kenn ci soo yemee ci feel nii fu asax ay garab da ko fay def te fekk boobu yaa ngi indi poson boo xam ne day mujj nekk ngelaw gi yóbbu ko mu nekk loo xam ne itam du baax ci ci ci ci dootul taar waaye itam poson boobu loolu di xeeñ dootul nekk loo xam ne dafay baax ci wér gu yaram nit ñi non lu wér lu wér li ngay wax nii moo tax moo tax maa ngi kontaan maa ngi kontaan si décision ministre bi bu muy def voilà mooy libérer l' espace public waaw mooy commencer dégager oto yi dégager nit yi képp kuñ fa nit warul nekk gars yi dégager ko ah, waaw loolu Asie waaw Asie dara gars yi gënuñu yaatu de Chinois yi wala japonais yi mais ñoom ñu tegee loi kenn du ko ñemee jargat dégg naa ñoom par exemple piéton euh, euh, fu mu war a jaar boo boo fa taxawee boo fa taxawee seconde. Mhm. ñoom sa sa si kaw oto lañ jaar. dëgg te fii boo boo nekkee di dem bu oto bu nekkee di da nga koy may mu jàll. mais ñoom foo Asie. Asie wala Japon wala Chine wala Corée. bu ñu ñuy de uh-huh. mais bu ñu tegee loi ñëpp ay respect c'est vrai de A à Z il faut qu'on se passe ça pour ñu mun a avancer. loolu mooy problème bi quoi te encore mu commence ci biir kër yi ça commence par chez toi. bu ñu ko rafetlee ci biir kër yi mu génn ci biir mi ñu ku ne rafetal ñu mun a avancer. c'est vrai waaw en tout cas euh, li nga wax am na solo trop. Mhm. te waxtaan bi mi ngi tàmbalee yaatu ku ci bëgg bokk itam mën ñëw parce que lii jàmm rek la jóguñu pour yàq jóguñu def ñu ngi lay gërëm baax di la sant maa ngi leen di nuyu man Modou Gueye laa tudd Modou Gueye tàccu leen ko tàccu leen Modou Gueye fii ni mu mel nga xam ni espace vert la mhm. euh, nit ñi dañoo soxla nooy nooy xet gu neex mais itam problème bi ñàkk bërëbu ngànnuwaay itam indi na ko ndax ki nga xam dafay dawal oto moo xam tax taximan la war a yore particulier war a car la nekk nekk toll ci diggante itam mënul dem ci kër ci fii lay mën a yem c'est normal mu tuur fa ndox mhm. loolu itam état bi bokk damaa bëgg nga sensibiliser ci état bi ñu teg ay bërëb yoo xam ne bërëbu ngaanuwaay la. waaw loolu tamit nga wax noonu am na solo. xoolal caméra parce que yaakaar naa ne tey ku dox ba ñëw fii xam nga fii nii buntu marché la. buntu voilà marché baa marché la. tey par exemple fii waroon nañ fee teg ay douche. douche yoo xamante ne bii pour ngaanuwaay la. ndax parce que fii tey man man man saf naa. ngaanuwaay xoolal bi saf naa ngaanuwaay ma gàddu sama sama sama sama sama bitéel dugg ci kër fii ba ma demee dañ dama fii looloo bañ dañoo bañ yem naa ci lu mel noonu kon xam nga ne kon tey tey tax yow tey parce que gaanuwaay dina dem ba toll foofu mënutoo koo téye mhm. faaw di ngay di nga dem ci mbedd mi nga saw ndax parce que fii suñ dindi woon garab yi ñu defar ko daal koy kara ko ba mu naayis mhm. defar ko ba mu naayis kon kenn du fi xalaata saw def fi ay douche douche publique yoo xamante ne bii mbooloo mi daañ sof bëgg a tuur ndox nga ñëw tuur fi ndox mais xam nga ne fii ku ñëw taxaw fii tey ñëpp <laughs> nday tuur ndox fii amoo li la gënal ak xet gi encore ak xet geeg yooyu soo loo taxaw fii di tuur ndox voilà waaw ah, kon bu defee maa ngi jégalu mais ñu ñoo lay gërëm ñun ñu ngi lay gërëm baa di la sant ndax li nga ñemee wax ji wax ko wax joo xam ni wax ju teey la wax ju ànd ak dal kon mbokk yi defe naa li ñu waroon a wax parce que nii rek lay demee nag ah, fu ñu ñëw taxaw wax fa lañ fa war a wax ah, ñu daal di ko tasaare parce que caméra ma caméra bii ngeen gis da koy tasaare ci àdduna bi àdduna moo doxee noonu foo taxaw foo nekk wax ëllëg wala ci ay seconde léegi léegi léegi mu tasaaru ci àdduna bi àdduna moo doxee noonu te nag dañ ciy gërëm bu baax di sant ñi koy def ak ñu ñi di ko def parce que suñu liggéey la itam du ñu ñu for rek ci mbedd mi rek di def lii donc lii kon dañuy ñaan mu sax ñu gën a dugal suñu loxo ci lépp loo xam ni day doxal réew mi. bu ñu waxee ci problème mu rond bi. rond point mën nga ci wax wax ci. problème bu problème la waaw. mais nag aussi tamit fii. naa laa wax ne rond la bëri na ñi fi tase. ñi fi te aussi tamit bari na ñi fi romb aussi tamit. ñu dem te fi mu toll nii te marché baa ngi nii. Mhm. te pour man daal <laughs> fii waroon na am ay toilettes. yu yoon. mais nag ñun ñun marchands ambulants yi fi nekk. Mhm. wax fa yàlla am na xoolal caméra bi rek am am nañu fi ñuy fayee. tuuree ndox. Mhm, mhm. ah fan la xamante ne fi ñuy fi dencee suñuy bagage yi fële. ah fële ngeen di fay tuuree ndox la ko. Ah. boo ci woon sax boo ma toppee ma dem ba won la toilette yi nga gisal ko sa bopp ñun fa ñuy fayee suñuy bagage fa lay nekk képp sa bagage nekk fa nga xamante fa ngay tuuree ndox. da fay juróom dañ ko ñëw ne fa nga loué. ah fa nga say bagage nga xamante ne fa lay fanaan. fa fanaan waaw. ngay fay par weer. yow am nga autorisation pour tuuree fa ndox mais nag du ñëpp nga xamante ne. ah du loolu am ñoo xamante ne seen bagage mun nañ ko. voilà gàddu ak moom da ci mel ni ay ñu yor ay bagage voilà mais bokk ak ñi nga xamante ne aussi tamit yor nañu ay bagages yu bëri. dëgg la mënuñoo déplacé mënuñoo yenu mënuñu koo yenu di ànd ak moom. c'est voilà waaw suñu maire Moussa Sy macha allah ñu koy sant di ko gërëm bu baax waaw suñu message ci moom mooy que ne. bu ñu munoon dimbali aussi tamit ñun marchands ambulants yi. Mhm. mu gën ñoo organiser fii. nga mhm. xamante ne dinañ am foo xamante fi ñuy mun a beru. xam nga fii nii espace bi yaatu na. Mhm. pour man daal mun nañ ko organiser. defar ko nga xamante ne lu mel ni jaaykatu jaaykatu téléphone ñu am fu ñu féetoo jaaykatu dàll yi am fu ñu féete. jaaykatu tàndarma yi am fu ñu féete. ñeneen ak ñeneen même bu dee tamit yaatul yenn yaatu yi tamit nga xamante ni kenn ku ne di nga am fooy fooy làqatu. ñu jóge ci digg mbedd mi affaire yooyu noonu ñun fii nii ñu ngi ci ñu ngi liggéey di daan suñu dool di yóbbu suñu njaboot mais aussi tamit bon nekkul lu ñu gënal au cent pour cent aussi xam nga nekkul lu ñu gënal au cent pour cent parce que xamal lan la waaw mooy que ne euh, digg mbedd ñëpp xam nañ ne danger la oui oui ñëpp xam nañ ne danger la mais aussi tamit bon xam nga tamit ku amul pexe tamit amoo pexe voilà non li nga gis nga li nga wax lii ñu jàpp ni aussi tamit ñun lii mooy suñu solution tey balaa ëllëg mais aussi tamit kenn ku ne moom boo sañoon di nga nekk ci sa place. c'est vrai di tijji. Mhm. mais chaque jour boo xoolee lii nii sax coono gi dafa dafa dafa bëri sax. nga nekk ñëw lal lal li affaire yi. waaw waaw dafa tegu ci yoon. ba environnement bi. dëkkuwaay yi. fi nit ñi war a jaar ñu jaar fa. fi oto yi war a jaar jaar fa. kenn du sonal kenn parce que nit itam ngay dox boo mu yàgg oto nee la tël parce que mënuloo jaar ci yoon wi loolu yooyu it day indi ay ay accident loolu rek la waaye du leen ah, Sénégal ñu ngi lay gërëm di la sant mbokk yi xam naa ni waaw su fekkee ni mën nga wax it mën nga ñëw nga daal di taxaw nga présenté wu nga daal di wax li nga xam ne moom la itteel maa nag ñoo xaw a tolloo gis nga <laughs> taw ba <laughs> waxal tur beeg sant bi Mouhamed Sylla voilà donc man suma parce que ñu yàgg neen di jaay fii mhm. donc fi la mën a liggéey pour am lu ñu jàppale suñu jabar yi ak suñu doom yi. très léegi boo ñu bëgg dindi fii day xaw métti. Mhm. mais fekkantee sax comme ñoom nee na fële ci kii bi gay dafa fa saw. Mhm. mënuñu sa jox ñu fee ñu dem fële sax ñu toog foo jàpp parce que fii. fële ñuy saw fële ah fële moom waaw non waxin la quoi. waaw waxin la parce que mënuñu jox parce que fii parce que fii mun nga toog fii oto mun naa. waaw wóorul saaran. ñu dëgg la fekk na fii. dëgg la ca ca fii moom wóorul. waaw wóorul dëgg yàlla fii moom du place jaaykaay. mais yàlla baax na euh, yal na yàlla indi. solution soo yàlla. waaw moom mu ne xool comme mi fee. voilà des années ñu ngi sew foofu. donc mën nañu xoolal foofu. juguñu foofu ñu mën a toog foofu ñu mën a jaay foofu parce que fii la boobu wóorul. dëgg la parce que maa ngi jaay fii. maa wóorul wóorul yàlla maa ngi jaay fii. très bien maa jaay temps wala weer yi ak kii bi la xale ak kii. yàlla na nga ci def ay at yu gën a bëri bëri te lépp nekk jàmm kese voilà. donc léeg-léeg ñoo fii parce que fii lañ gën a miin. waaw mais léegi bëggoon bëggoon naa léegi nga wax ci hmm. affaire lii ak place bërëb boo xam ne dinañ hmm. dañu fa mën a soxla ci gànnuwaay. mu am mu am fu ñu mën a irine waaw pour éviter d'aller pisser là-bas. Hmm. boobee saw bi pour lan. gars mën na defar benn douche. public publiquement ku ñëw dugg ndox. voilà mais mais fekk sax gars ah yi na ko moo tane nii tamit. mooy tane lii baaxul. loolu xet gi fu mu toll. xet yi non ma fas. mais maa lay remercier kontaan euh, kon mbokk yi lii nañ leen indiloon fii ci rond point case bi ñu doon waxtaanee rek lu jëm ci mbiru environnement. waaye bu ñu environnement xam nga espace vert bi moo ñu fi indi woon ak itam lii nga xamante ni moom la ñu fay ni ndox muy doon. xeet goo xam ni dafa sonal ñëpp te loolu taxu ko woon jóg waaye loolu tam dafa lëkkaloo ak li nga xamante ni moom moo di occupation anarchique maanaam euh, jël yoon yi nekk nga ni bu mbedd bi mbedd buur la dégg nañu marchand ambulant yi seen kàddu seen wax seen message kon li ñuy def rek mooy dinañ leen ko toppal lii la yëpp ci réew mi lépp loo xam dafa jëm ci wàllu environnement ci lu koy defar ci luy yaatal dëkk bi ci luy setal dëkk bi ci luy baaxal dëkk bi te loolu lépp environnement la dinañ ci fas yéene ànd ak yéen ndax li ñoo ko bokk te dañoo bëgg ñëpp jariñu maa ngi gërëm sama technicien Moustapha Seck ak ñi mu ko bokkal ñëpp di leen di dig daje dootul yàgg ci beneen numéro environnement jërë ngeen jëf wasalaam